Votre bulletin moom instant moom moo ngi jaar ci yoon nit ñaa ngi voté ci yoon waaw benn problème amagul nag wax dëgg yàlla. waaw man danaa voté après mais dañoo nekk ci organisation avant ñun dañuy jiital suñuy sunuy ña maanaam ñi nga xamante ne bii ñooy suñuy ñooy ñi nga xamante ni moom ñoom la war a jiital pour ñu voté ba pare quoi ba ko defee ñu ñuy doog a voté. six mois la parce que xam nga ku ji ku jiitu faaw nga jiital ñi nga euh, ñi jiitu ba pare yow nga doog a mën a waaw nga doog a voté ñun moom suñu vote amul problème maanaam votu ñeneen ñi mooy suñu problème. ni ñaa ngi génn parce que boo xoolee euh, école bi euh, rang bi gudd na am ñoom dañuy ñëw sax delluwaat mais dañuy ñëwaat kaay moom dañu voté moom incha allah dañuy voté waaw xam naa dina am benn pourcentage bu baax incha allah. waaw ñoom message bi may mooy ñi nga xamante ni ñoo ngi voté dinañ dem voté di si jàmm salaam. waaw ci war a gañe incha allah dina gañe ci jàmm salaam xam nga Sénégal jëm kanam suñu réew la jaru ñuy nekk di xul di xeex wala ñu koy taal waaw bu ko benn candidat jar. di ñaan Sénégal ñëpp yàlla ñu yàlla jàppale te yàlla may ñu gudd fan ak weer bu yaramu woote bi macha allah ñëpp kontaan nañu bëgg naa woote yëpp jaar yoon. bu kenn di xuloo bu kenn xasante sa morom kenn ku nekk na nga dem wootee jàmm delluwaat jàmm sa kër képp ki nga ne mooy suñu jàmm yàlla na ko yàlla doxalee ci barke Seydina Mouhamad ñu ngi sant Sénégal ñëpp di leen gërëm di baal leen xaq yàlla ñu yàlla may guddi fan ak yaram ñu ngi sànni yéen a waa rajo yi seen liggéey moom rafet na seen taxawaay rafet na yàlla na ko yàlla réew jëm ci kanam ci barke Seydina Mouhamad